njariñ la lu am solo yoo xam ne euh, da ko am ci ab dëkk muy investissement ndaxte investissement wàll yi muy laal ci ab dëkk day bari te lenn lu ne njariñ lay doon luy tàbbi ca dëkk ba dana laal ci emploi dana laal ci ay ci ay impôt dana laal ci ay taxe dana laal ci yeneen wàll yu baree baree bari waaye tamit mu nekk loo xam ne tamit euh, dafa nekk soxla soo xam ne nit ñi dëkk dëkk bi dañ koo soxla muy lu mel nii ndaxte euh, lu mel nii dëkk yu mag yi ci àdduna bi yëpp ñuy tukki gis nañ fa yoo xam ne yu siiw la ci àdduna bi te bii nii euh, euh, yóbbuluñ ko dara day nekk ci seen kaw waaye nekkuñ ci kawam kon loolu lu lu am am solo la loolu nag li koy maye mooy nit ku gëm réewam fonk am réewam Euh, fonk ab dëkkam euh, ndaxte nit bu bu melee noonu mooy tax lu mu gis ci àdduna lu baax rek da ko yéene am réewam te réew mi yëpp la ko yéene loolu moo tax mu dox ba agsi fii yu bëree bari la ci ci ci Sénégal kon euh, li ñuy def rek mooy dañ koy ñaanal rek mu gën a law gën a yaatu gën a am barke te di ko ñaanal rek la Cheikhul Khadim ñaanoon ci ba muy sanc dëkk bii ca xasida ga nga xam ne la mu bëgg ci dëkk bi yëpp ci la ko ñaan te lam ca doon ñaan moo waral yii yëpp di ñëw ba lépp lu am ci ci àdduna dugg ci réew mi ci lu baax rek daal di ñëw Touba loolu da koo ñaanoon bu yàgg kon dañuy barkeelu rek si béy doo nga xam ne moom la waxoon ne wajlub lahal xayra min al jihaati as sitti wakfiha anil afaati yow yàlla maa ngi lay ñaan nga xëccal sama dëkk bi di tuubaa ci juróom benn wàll yëpp yépp yiw bu baax rek di fa jóge di ñëw kon lii def cee bokk waaye béréb bii tamit ñu ngi ñaan loolu tamit mu mu taasu ci barke bayit boobu yéene ji mu amoon ak yaakaar ji mu amoon ba def ba def lu toll nii ci Touba lu rafete nii lu lu ah, amee solo nii suñ borom defal ko tawfiix defal ko euh, barke ci lii nga xam ne moom la ubbi te defal ko mu gën a tas gën a yaatu gën a xéewale gën a am barke te suñ borom sàmm ko suñ Demba Ka suñ borom sàmm ko bu baax a baax ba yéene ji mu am ci réew mi lépp suñ borom defal ko mu àggale ko ci anam nga gën a rafet di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi di ko ci euh, di ci ànd ak moom ba mu mën a mel nii mën a euh, mën a àgg fii mu àgg tey kon kàddu yooyu rek lañ ci amoon euh, luñ ci sànni